maa lay nuyu. waaw maa lay sant bu baax a baax. Djily Bagdad. mu nekk kenn koo xamante ni génn na àdduna muy suñu papa Boy Bambara. doonoon koo xamante ne icône woon ci làmb tey noonu nan nga ko dundee. waaw paa bi sama papa la mën naa ko wax parce que moom sama papa ñoo doon ànd démb ak tey pare mu takk sama maam bu jigéen. doo xam ne moo jur sama yaay. waaw li ma mën a wax ci moom bari na parce que suñu kër gi lépp lu fa am danaan teew moo doon def lépp. waaw nit ku baax la. nit ku bëgg njabootam la. nit ko fonk ay mbokkam la lu ma am bokk na ko ay mbokkam waaw tamit mm, làmb dund ci loo xam ne tamit tey ñëpp mën nañ ko ko seedeel waaw paa bi daal li mu mën a wax ci moom bari na mais doy na war daal. Mm. waaw doy na war. yan kàddu la la daan dénk lu bëree bari loo xamante ne daan nga ko def sa sa xel daan ko jàpp ci sa bopp. waaw li mu daan wax lu ëpp na daan daan ba yéen fonk seen waajur. Mm-hmm. waaw moom man bu ma ko musaan seet loolu mu daan wax an sa papa baa yaa ngi koy toppatoo an sa yaay toppatoo te loolu kilifa bu koy def rek mooy yëg na njabootam fonk na ay waajuram waaw moom loolu daal kàddu yooyu daan na ko wax ci man bu baax su ma ko musaan seeti waaw. ma lay jaajëfal bu baax jaajëf